union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal euh, ñu ànd ak euh, RNV mooy regroupement national des organisateurs du Sénégal ci biir lool di ngeen xam ni UNAPAS euh, kuréel la goo xamante ni dafa nekk union parce que organisation yu bari yu professionnel yu liggéey ci wàllu automobile ñoo ñëw dugg ci seen biir ngir mën a ñoŋal liggéeyu automobile changer également euh, euh, euh, configuration wu mécanique yi ci Sénégal moderniser ko forma form former leen formaliser leen wutal leen ay garages yu moderne et des garages de proximité pour que vraiment Sénégal mën a évoluer à travers technologie bu bees bi ci wàllu automobile ci biir loolu UNAPAS dafa am ay programmes yu bari programme yi bokk na ci tey bi ñuy lancer nii tey muy le ZAP le ZAP c'est un programme sociale boo xam ni zéro ambulance la en panne pour sauver des vie initiative boobu nag bi ko kuréel yëpp dajaloo ci biir UNAPAS waxtaan ci euh, dañ ni léegi UNAPAS dafa bëgg a jàppale askanam dafa bëgg a jàppale euh, euh, dafa bëgg a def acte citoyenneté jàppale nguur gi ndax ku ne xam na ni Sénégal fi mu toll ci wàllu développement ci wàllu configuration réew mi ak situation yu bees yi fi xew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 ñun ñu bëgg leen a teggil lool ndax teggil leen loolu mooy teggil ko suñu bopp teggil ko suñu bopp nag mooy ñun comme suñu métier la te xëy na ambulance du du yanu lu diis ambulance xëy na du daw yenn daw yi kon ay paanam wërta jafe ñu dajale paan yëpp diagnostiqué ko xool ko xam ni mën nañ koo jël en charge ci suñuy propre moyen incha allah ñu teggil ko Sénégal yëpp pour ñu xam ne désormais le ZAP de l'UNAPAS c'est pour vraiment euh, dépanner et maintenir toutes les ambulances du Sénégal et pour de bon nga xam ne dootul amati benn procédure de dépannage fu mu paane ñu woo zab bi zab seet ci UNAPAS bu gën a jege ñu ñëw systématiquement réparer ko ba nga xamante ni évacuation d'urgence yi dinay mën a am ci condition yu baax. loolu moo woote waral woote bi est-ce am na numéro boo xamante ni à tout moment bi ñu ko defee sunu plateforme yi notamment ay Facebook Instagram et tout. Euh, wax dëgg yàlla def nañ ci contact gi ñu ci war a def nit ñi tamit ñu ngi ñuy woo en amont comme en naval woote bi ci ñaari mbir la benn bi hôpitaux yi ñu ngi ñuy woo tey jot nañu recevoir nañ bu Tamba resevoir nañu bu Louga resevoir nañu bu euh, euh, Kaffrine recevoir nañu bu Kër Masam Kër Samba Kane ñooñu ñëpp tey ci plateforme bi lañ ko gisee tey si suba ñu ngi woon ci mbaaw mbaaw def nañ fa ñaari eh, district de santé euh, ambulance dañ fa fekk dépanné nañ leen ñu ngi fii tey ci sami municipal nga xam ne ñoo fi ñëwoon euh, à l'avant diagnostiqué yi fi nekk xampaan yi ak suñu partenaires yi ñu jënd pièces yi ñeneen ñi may ñu pièces yi ñeneen ñi vraiment dugal ci seen loxo ba tey indi nañ ko yëpp pour mën koo monter et puis continuer di gérer maintenance bi beneen deuxième volet bi mooy am na yeneen nit ñu baax ay nit volontaires yoo xam dañuy gis annonce bi rek wooñu vraiment dugal ci seen loxo moo xam pièce de rechange bu ñuy may moo xam euh, euh, huile yu ñuy indil moo xam également glaciol yu ñuy jox ci pour ñu mën a vraiment am benn euh, benn stock de rechange bu am solo boo xam ni bokkut ak boo xam bi INAPAS mettroon en place hmm. kon wax dëgg yàlla dans